tey nag ñu ngi war a jàng darsu bi nga xam ne dafay leeral wuute gi am ci diggante borom xam-xam yi ndax aadama ci asamaan la nekkoon maanaam aljana ji ko yàlla génnee ci asamaan la nekkoon war wala aljana jooju ci suuf la nekkoon ndax aljana jooju mooy aljana ji yàlla dikk wala bokkut ak aljana ji yàlla dikk loolu wuute am na ci waaye daal mën jàpp ne mooy aljana ji yàlla dikk <clears throat> loolu daal mooy li gën a dëgër ci wax ji te lu ëpp ci borom xam-xam yi loolu lañ wax. وإنما الخلاف النكوتي الذي جاء خمنا ذكره تدنكو دينغا ذكروه تدنكو ينبر مكم كمي في أن هذه الجنة الجنجي التي جاء خمنا أسكنها دكرو ننف آدم آدم هل هي نخمم في السماء تي أسمى لنك أم في أرض ولا سوف لنك والخلاف مو الذي بين خمنا ينبغي دنا يلا فصل هو والخروج أجن من الشموم يعني وتي يبرمكم كم يتدون دخل الجنة جي هذا ما دكون <clears throat> جاس ما نلم سوف ورنا كو تقلي دال تيجن بلايرالك والجمهور بولم برمكم كم ينرن على أنها نموم هي التي مو بين خمنا في السماء من جاس يعني إيه، ما نرن الجنة جي نك أسمان بلا يلا جن هذا وهي مم المأوى مو الجنة صخ لظاهر الآيات غير آي فنشي لولو ولا حديث أك حديث غا خامن فنتي لولو كقوله تعالى نك وخي الله جكو جمنان <coughs> وقلنا وحنا يا ادم يا ادم اسكن دنك دكل انت يا وزوجك اك سخنا الجنه الجنه والالف الف كي واللام اغلام ليست نكل العمومي بور مثلم ولم الجنه كقوله تعالى نك وخي الله جمنان وقلنا وحنا يا ادم يا ادم اسكن دك Eh, wala li maamudin nekkut luñ miin lafzin gi ko jug baat xam nga arab day tudd <clears throat> dara ba pare defaat ci alif ak laam pour wan baat bi mu njëkkoon tudd la ci na maat niki eh, yoonu nañ ci ila firawna rasulan fa ansa firawnu rasula firawnu mooy rasula rasulu gañ njëkkoon tudd kooku baat bañ njëkkoon tudd la fii nag yàlla tudd fi benn aljana ba ñuy wax ne aljana jëm njëkkoon wax moom lay waxaat fi te lii nekkul pour umum ndax aadama ab aljana la dëkkoon waaye ni ma taxawutu naka day dellu wala maamudin ci luñ miin zahni yin ci xel maam day dellu ci aljana ji ñëpp miin rek wa humum al mustaqil mu aji sax saraan ci sharia min jannatin mu awaat ci aljana sax su fekkoon ne beneen aljana la konoon du ci def alif ak lam gi nga xam ni day war ne aljana ja ngeen miin la bëgg a wax loolu moom ñuy jàng wàllu loo xam nañ lii loolu kon aljana ji ñu xam ci sharia muy jannatul mu awaat fala ko yàlla dugaloon <clears throat> loolu rek tegtal la ok xawli Moussa ne ki waxi Moussa ala yàlla nekk moo asalaamu jàmm li Adama ñeel Adama ala yàlla nekk mu asalaamu jàmm saa ba muy wax ak Adama daf ne ko alaama axrajtana ci lan nga ñuy génnee wa nafsaka ak sa bopp mi ne jinati ci aljana <clears throat> noo def ba génne ñu aljana alxadis bi nga xam ne kama siyaati comme nu muy dikkee alkalaam wax alay ci moom xadis boobu danañ ci wax aljana li Moussa waxee ne lu tax nga génn ñu génne sa bopp aljana dafay war ne du aljana ji ñu soxla ni aljana ji aadama nekkoon mooy aljana ji ñëpp soxla waaye du beneen aljana bu bokkut ak bi ñu soxla وروى نتلنا مسلم في صحيح من حديث أبي مالك الأسجعي واسمه ترى موي سعد بن طارق أنا أبي حازم جريت أبو حازم سلمة بن دينار أنا أبي هريرة جريت أبو هريرة أبو مالك عن ربيعي جريت ربيعي عن حذيفة جريت سوف يضيف قال آه، وحنا نيوم نيار قال آه، وحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم <coughs> يجمع يعني دنا رجال الله ويلا الناس نيني فيقوم متخو المؤمنون جريني حين تزلف بن جغل لهم نيلن الجنة الجنة يلا دنا رجال ني نيب مو توكي ويد دجال يوم القيامة دا خمو لي خاو جريني بال جنا جغي فياتون ني ديك ادم ادم فيقولون يا ادم يا ادم استفتح نيانا يالا اوبي لنا نيال نيو جنة الجنة مو ñuy wax ne yàlla boo amee soxla ci moom nga war a jaar ci moom direct bu loolu bokkaale nga dëgg-dëgg ñoom wane nañ ne bokkaale moom dafa xaraam ci àddina waaye dagan ci àllaaxira loolu mooy wax ju yàqu bokkaale musu musu dagan <coughs> doo dagan fenn nit ñi ñu gëm yàlla yi waxuma la ñuy bokkaale kër de ñu gëm yàlla yi buñ gisee aljana mu jege lool ah, du ñoom ñoo tax ñu yàlla bind aljana waaye teewul danañ dem ci aadama ne ko fexeel aljana ubbeeku ñexel ñu aljana kan moo ko ubbi mën a ubbi ku yàlla xanaa lii kay mooy ñaan mi lu mu xamut istaftix lana aljanna sàkkul ñu ubbil ñu aljana <clears throat> ñoom jaar nañ ci mbindeef bi pour mu kooku jaar ci yàlla yéen di aj soxla yi ci gi leen gën a gën a jege yàlla ko yeggale ko ci yàlla bu dee loolu bokkaale la kon dagan naa la xaraa kon <clears throat> xam nga ne loolu may wax ci yàqu fa yaqool adama wax ne wal axrajakum ndax génn na leen mel jënati ci aljana ji illaa xatiyu abikum lu mooy njumteg seen baay yaa ngi dégg ubbil ñu aljana lay julli ñu wax yomal qiyaamat adama ne du man maa leen fa génnewoon woon loolu kay dafay war a ne ah aljana ji nga xam ne nii fa la dugg ëllëg fa yàlla génne woon adama yeneen wax yëpp nag jarul jàpp luñ ci mën a leeral danañ ko leeral <coughs> buñ ci yegsee <coughs> wa zakara tudd na al xadis xadis bi tuur yi ci guddam tudd na xadis yëpp مم حديث بابو نيوني تي مسلم وهذا لي في انك قوة كاتم جيدة جرفت ظاهرة بفين في الدلالة بروتكتور على ان الجنة جاء ادم يكون جنة اوام الجنة سخجي نيالا ديك وليس انك تخلو ديوات النظر انترنت ما نعم لو كوكو خولك وركو من نانغو وقال اخرون تيرو امنا نينا نيوت بل لي فينك الجنة الجنة التي بين اسكنها دكل نكو ادم ادم لم تكن نكو دون الخلد الجنة am na ñu ne aljana ji aadama dëkkoon bokkut ak aljana ji nga xam ni moom la yàlla dig jaam yàlla yi ca eh, yawmal qiyaamati ndax ñu ne lan ñu layee ay mbir yoo xam ni xew na ci aljana jooju te loolu jomm na ci al ku dugg aljana waaye eh, lay woowu la ci wax rek mooy aadama yàlla aljana jum ko dugal du jënatu jëza aljana ay fay waaye neexma la gu ko yàlla defal dugal ko aljana waaye ci coobare yàlla it yàlla dafa bëgg mu génn aljana kon yàlla mën na ko faa def looloo xam ne ni su ko defee dafay génn aljana kàttanam am na loolu ndax waxut ko ne ko boo ma jaamoo ma dugal aljana lii du ma la ko fa teg déedéet yàlla daf ko xéwalal rek su ko neexee lenn ci xéwal li mu teeku du force ne ku yàlla dugal aljana rek ah force mbolem xewal dang ko fi am déedéet xam nga malaaka yi duñ mo yàlla yàlla dugal na fa iblis waye teewul mo na yàlla dugal gum ko fa dégal xewal la mais tekkiwul ne mbolem xewal yo xam ne mu ngi ci malaaka yo rek iblis dana ci jot kon nit adam dañ ko fa fofu ngir xewalal ko kon duñ wax ne mbolem xewal yi nek aljana rek force adam daf ci wara jot mbolem yi nga xam ni ku dugg janam <clears throat> loolu du ko dal rek du dal aadama dee rek tekkul loolu ndax loolu xéwal la bokkut na ku jaamu yàlla ba yàlla fayee ko aljana loo ko ne ko boo fa duggee yëpp du la dal duggee loolu du ko dal ndax kooku loolu ak fay la fay jëf da koo jiitu te bee jëf jiituwul ko <clears throat> ñaar yooyu bokk na dafa naa loolu ab tontu la li àndoon ndax moom ñu ne ndax aadama kulli fa togg nañ ko jëf fiyaa ci moom an laa yakula bu mu lekk min tilka shajara ci boobu la garab ñu ne dañ koo sant bu mu lekk garab gi te aljana amul togg jëf waaw parce que moom fay jiituwu ko jëf jiituwu ko xewal kese la moo tax lu neex yàlla mu aaye ko ko foofu bokkut na koo xam ni dafa jaamu ba sonn yàlla fayee ko loolu dikk ko ne ko duma la dara ñaan ñun bokkuñ am na différence wala àndoon ndax aadama naama nelaw na fiyaa ci aljana te aljana amul nelaw moom aadama aljanaam jooju du aljanaab fay waaye aljanaab xewal la kon su neexee yàlla mu sant ko fa leneen loo xam ne <coughs> mu def loo ko fa leneen loo xam ne dafay manqué ak xéwal ak wuuteeg xéwal ak ki nga xam ne nii moo jaamu yàlla ba yàlla fay ko bu duggee aljana na mu fay xéwaloo dëgg-dëgg ñaar ñooñu sax war ñoo bokk ku yàlla dugal aljana noonu ci coobare boppam ak ku jaamu yàlla ba yàlla dugal ko fa mun ñoo bokk <clears throat> man nga am sa mbir dugal fa nit waaye am loo ko fa xañ waaye nit liggéeyal la ba nga kontaan fay ko ko tinkil ko lépp xañoo ko ci dara loolu kay doomu aadama bu ne sañ na ko waxuma la yàlla kon moom lay woowu du lay pour ne du aljana aadama aljana jum nekkoon du aljana juñ duggoon déedéet ah, mën naa nekk aljana juñ duggoon te yàlla xañ ko fa yenn <coughs> dégg nga boo xaree nañ ko minaat ci aljana ñu ne te aljana ku fa dugg doo génn <laughs> wax na la ne moom aljanaam am xéwal la yàlla bu ko neexee mu jox la xéwal nangu ko te jullit ñi ñoom seen aljana fay la moo tax duñ fa génn <coughs> nee na dugg na ale aljana iblis iblis fiha xale yi ci aadama iblis iblis fi wàcc aljana ñu ne iblis dugg na ca te iblis noorab yàlla la dugg aljana waaye iblis dugg gi mu dugg aljana nekk dugg dëkk fa yàlla mën na ko faa dugg aljana pour mu nekk ci nattu yi nga xam ne nii aadama war na ko faa am ndax moom aljanaam du aljana yi fay iblis it kenn waxu ne dafa xewalu ci meññetu aljana yi ak banneex yi yàlla mën na ko dugg aljana ngir mu jarat nattu aadama rek ndax loolu bokkul ci lu mu war a xewaloo ci aljana <coughs> waaye moom iblis du am benn xewal ci dugg googu <coughs> loolu amul benn problème ndax dugg goo du xewalu ci aljana moo tax ñuy wax dugg aljana waaye du dugg kese goo ne ni amut ak xewal waxaadaal yi mi maa yu naa fii bokk na si nga xam ne dana dàqwante an mu nekk aljana tuma waa aljanaay sax ñu ne yii moo tax ñu ne aadama aljana jum nekkoon du aljanaay sax waaye dégg ngeen tontu yi ñu ci tontu defe naa ne ku seetantal dana xam ne <coughs> ku liggéey bañ fay ko bokkut ak kuñ jox xewal rek go xamni ne ko ko jox xéwal ta liggéeyut ko man nga koo xañ yenn yi waaye ku liggéey bañ fay ko mom la nga koy jox lépp ba mat ñaar yooyu bokkuñ wa dal qawl wax mahkiyun maxkiyun an ubay ibn ka'b jëlee ci ubay ibn ka'b ak abdullah ibn abbas ak wahb ibn munabbi ak sufyan ibn uyayna waxtaru tan ko ibn qutayba fi ma'arif wal khadi munzir ibn said al albaluuti fi tafsiri ci firim alquranam وافرد ويتنا لو نيالك مصنفا تعرف على حدة تبدا يوم دي ورني الجنة جي آدم نكون دو الجنة جي ديك وهكاو من تلقى أبي حنيفة جي جريك أبو حنيفة الإمام كينجير وأصابك أي قائم رحمه الله يعني هذا يرم لين ونقلو تخلنا وحجوج أبو عبد الله محمد بن عمرو الرازي بن خطيب الرأي في تفسيره كفرهم أنا أبي القاسم البلخي أبي مسلم الأسباني ونقلو تخلق القرطبي في تفسيره كفرهم القرآن an il mu'tazila jëlee ko ci mu'tazila wal qadariya wa hada al qawlu te wax di wax ne adama aljana jam nekkoon bokkut aljana ji ñu yàlla dig xu moom tawraat mooy texte bi nekk ci tawraat alati bi nga xam ne bi ay di ahlul kitaab mu ci loxo ahlul kitaab loxo na dañ cee changé waaye daal loolu fa nekk kon ñu ñëpp wax nañ ne aljana ji nga xam ne ni moom na yàlla dig jaam yi bokkut ak aljana ji adama nekkoon génn fa aljana ji aadama nekkoon aljana yoo xam ne yàlla daf ko bind pour natt ko moom kese <clears throat> loolu mooy di seen lay waaye dégg ngeen tontu yi ñu ci tontu yàlla daal njëkk jaam yi di ko jaamu mën naa dugal ku ko neex aljana génne ko fa mën na koo dugal ku ko neexit am lu mu ko xeeñ waaye jaam bi nga xam ne dafa jaam ba mu fayee ko aljana jooju moom duñ ko tënk ci dara bal sax jaam yi am na nañu leen tënk ndax aljana yi gën nañoo kawante ku nekk rek aljana ja nga nekk duñ la fa tënk dara waaye ja nekk ja la faree kaw moom xéwal fa nekk mën nga see ñàkk jot mhm. kon su fekkee jaam dana jaamu yàlla bañ faree ko aljana te xéwal yi ko faree kaw mënu see jot kon koo xam ne nii moom dañ ko xéwalee rek te jaamoo dara ah kooku même bu duggee aljana am nañ droit yàlla yàlla am na liberté pour xañ ko yenn xéwal yi loolu moom yaakaar naa ne ku ne xam na ne loolu yàlla sañ na ko. li yàlla yi la mu wax ne mooy xéeféer dugg aljana mooy dugg aljana sax fa <coughs> gannaaw ba nga xamee ne it yàlla pare na pour fay jaami du du xéeféer du jar aljana waaye njëkk yàlla di fay jaami moom <coughs> ah nga xam ne aljana <coughs> kenn amagut ko fa mm, du sori bu neexee yàlla mu dugal fi iblis mu nekk nattu ci nattu aadama yi parce que yàlla dugal na fa nattu rek bu ko neexee mu dugal fi iblis waaye iblis du fa xewlu du fa am benn teraanga loolu sorewul ndax nettalu ni iblis dafa am teraanga waaye dafa dugg rek pour nattu Adama wa min hakka bokk na ci ñu nettal alxilaaf wuute fi hada mas'ala ci bil masala abu muhammad bin hazm fi al milal wa nihal ci téere bu ñu tudde milal wa nihal indi na wuute gi wa abu muhammad bin utay fi tafsiri ci firim wa abu isa arumani fi tafsiri ci firim wa xakka nettal naa al jumhur ci mbolam ala wala wax ju njëkk ji mooy Adama aljana jam duggoon ak aljana juñ yàlla dik benn la lolu andi na borom risaala ci ibn abi zayd al xayrawaani loolu la andi aljana ji ñu yàlla dig fa la aadama nekkoon loolu la andi mbooloom borom xam-xam yi loolu lañ wax wa abul qasim ar raghib andi na wuuteegi wal qaadi maawardi moom it andi na wuuteegi fi tafsiri ci firam fa qaala mu wax moom maawardi ne waxtu li fa wuutee nañ fi janati ci aljana ci bi nga xam ne uskinaaha dëkkaloo nañ ko aadama yaani aadama wa xawaa uskinaaha dëkkaloo nañ ñoom ñaar ci aljana jooju ala qawlayni ci ñaari wax ahaduhuma benn bi mooy annaha nag moom jannatul xuldi mooy aljanaay beel bi ñu yàlla dig asaari ñaareel ba jannatun aljana joo xam ne ahadahuma para ahadaha préparé na ko allah leen ñoom ñaar wa jaala def kër googu di aljana jooju daa rab ci muy kër natt wala sa nekkul jannatul xuldi di aljanaay beel ëllëti bi nga xam ne jaala def na ko allah kër ak maa war di <clears throat> ñeena borom yi wutee nañ ñaari wax ñu ne aljana ji aadama nekkoon mooy aljana ji ñu yàlla dik ñu ne aljana ji aadama nekkoon bokkut ak aljana ji ñu yàlla dik waaye aljana la joo xam ne yàlla ko def pour na toog aadama dégg nga moom ak xawa wa man qaala ki wax bi haada ci wax ji ne aljana ji aadama nekkoon bokkut ak aljana ji ñu yàlla dik ñu wax loolu ixtarafoo ñoom it wuute nañ ala qawle ci ñaari wax ahaduma benn bi annaa ne aljana jooju yàlla bindoon aadama nekk ca du aljana ji yàlla dig jullit ñi am nañu wax loolu waaye dañ ne aljana jooyu annaha nak aljana jooyu fi samaay mu ngi ci asamaan yaa noo ndax yàlla ahbatahuma da leen wàcce minaa ci asamaan am nañu ne aljana ja adama nekkoon ci asamaan la nekk dile bokku ak nag aljana ju yàlla dig waaye ci asamaan la nekk wa hada li qawlu hasan mooy waxu hasan wa saani waxu ñaareel mooy annaha nak aljana ji yàlla defoon aadama fil ardi suuf la nekk du aljana ju yàlla dig te nekkutoon ci asamaan suuf la nekk am nañu wax loolu ñu ne li ànd ndax yàlla imtana imtaxanahu waa natt na leen fiyaa ci aljana jooj bi nax yi ci aaya leen ani sajarati ci garab alati bi nga xam ne nuhiya tere nañ leen anaat ci moom doona xëyriha wari su ci meññiri ñu ne yàlla boobu dafa aadama <clears throat> ne ko bu lekk garab gi yeneen meññiri mën nga koo lekk kon loolu suuf la nekkoon waaye teewul mën naa nekk ci asamaan ba tey yàlla aaya bu leen lekk garab googu waaye daal lii gën a wér daal mooy aljana ñu yàlla dik fala aadama nekkoon yàlla génne ko dégg ndax hadis jiitu <coughs> loolu rek lay wane wa hakaza lii qawlu jub ibnu jubayr ma wax ibnu jubayr wa kaana nekkoon na zaalik loolu baada umira gannaaw bu <coughs> iblis iblis bi sujjóoti pour mu sujjóotal li aadama ñu aadama wallaahu yàlla alamu aji xam bi sawaab bi si njub min zaalik ci loolu hazaali kalaamu mooy waxu Maawardi mm, nee na gannaaw buñ digalee iblis yootal aadama ba mu bañ ci la leen yàlla dugal dugal aljana <clears throat> borom xam-xam yi aljana ji ñu dikk fa la leen yàlla dugal ñi ne déedéet beneen aljana la bu bokkut ak bi ñu yàlla dikk waaye nag ci asamaan la nekkoon ndax dañ fa wàcc ñu ne déedéet suuf la nekkoon ndax dañ fa am na ay garab yu ñu fa aaye woon kon loolu suuf la mën am <laughs> waaye teew bu yàlla defalee aljana ci asamaan kay am na dura mën na ci def garab loolu yàlla am na ci kàttan <clears throat> kon ñu wax ne <clears throat> aljana ja Aadama nekkoon du aljana jiñ yàlla dik dañu wuté ñaari wax ñu ne ci asamaan la nek ñi ne suuf la nek kon faqat tadammana lamb na kalaamu wa huma wardi di boobu xikaayat aqwaali salaasatin ñet ñetti wax wa asharamu mu wane wa waxam an wane moom mutawaqifun aji fi masalati ci masalam netel na ne aljana jiñ yàlla dik fa la dëkkoon mu aadama netel ne amna ñu ne du bobu gaa ci asamaan la nekkon am ñu ne déedéet nekk toon asamaan te du bu ñu yàlla dig suuf la nekkoon kon ñetti wax ak noonu waaye moom nag waxam wane na ne moom taxaw na ci masala mi daal xam yàlla moo xam li ci njub wali hada li moo tax xakkaa net na abu abdullah arrasi fi tafsiri ci firem fi hadil masala ci bale masala bi arbaat aqwal ñeenti wax abdullah arrasi bu ñu firi quran ñeenti wax la indi ci masala mi mooy ban aljana la aadama nekkoon hadis salaasata ñetti allati yi nga xam ne awradaha ratul na ko maa war di waraa boo ñeente alwaqfu mooy taxaw ci ne yàlla rek xam Abdoulaye Razi indi na ñeenti wax ci firam ne masala mii Adama ban aljana la dëkkoon am na ñeenti wax ñu ne aljana ji yàlla dig la ñu ne aljana beneen aljana la bokkut ak bi ñu yàlla dig waaye ci asamaan la nekk ñu ne beneen aljana bi ñu yàlla dig ci suuf la nekk ñeenteel wax ji la mooy ña ca taxaw ñoom waxuñ ne fenn la nekk ñoom <coughs> waaye war a jaxal lëngal na alqawlu awal wax ju njëkk ji Abu Abdullah Arazi nee na wax ju njëkk ji moo gën a dëgër. mooy aljana ji ñu yàlla dig fala dégg nga aadama nekkoon wallahu alam yàlla rek xam na la ci njub xakaanet na alqawlu wax bi annaane moom fi samaay mu ngi ci asamaan wala sa nekku jannatu ma waa ja aljanaay sax ah, an abi aliin aljubbaay nettal na jëlee ci abu ali aljubbaay ne aljana ji ji aadama nekkoon bokkut bi ñu yàlla dig waaye nag ci asamaan la nekkoon waqad awrada rotal na asaabul qawlu saani borom waxi ñaareel ja suaalan ay laaj suwaal ab laaj boo xam ne yaxtaaju dana aajo mislu lu mel ni laaj boobu ilaa jawaabin ci tontu ñu wax ne aljana ji ñu yàlla dig bokkut ak bi aadama nekkoon waaye nag fi aadama nekkoon aljana ji aljana ji aadama nekkoon ci asamaan la indi nañ ab laaj <clears throat> boo xam ne aajo nañu tontu ko dégg nga fa xaalu ñu ne laa sakk amul sikk ana laa ne yàlla subhaanahu tudd ma seen wa taala kawe na tara da iblis dàq na iblis yam tanaa ba mu bañee mina sujuudi sujuud an xadrati ilaahi ci péeb yàlla bi wa amaroo mu digal ko bil xuruji ci génnaanaa ci péeb yàlla bi wala hubuut ci péeb yàlla bi waasa amru bi la mbir lay sa nekku min awaamir charia ci ndigalu charia bi as yumkin nga xam ne dana jàpp ni muxaalafatu wuuteeg moom waaye maa woon naka moom amrun mbir la bi ko jug dogal laa yu xaalafu duñ wuuteeg moom wala yu duñ ko mën a tere maanaam dañ ne yàlla génne na Adama ci péeb yàlla ba sant ko mu génn fu wàcc ci suuf te loolu kat du ndigalu charia ñu ne yàlla man na laa digal nga bañ def waaye nag kàttanu yàlla la yàlla na mu ci aat iblis iblis lay wax moom la yàlla génn ci péeb yàlla bi kàttanu yàlla la gu yàlla namu ci iblis moom mu génn ci péeb yàlla kon nan la iblis mën defee ba dugaat ci aljana <coughs> dégg yàlla na ko mu génn ci péeb yàlla ba waaye est-ce mën naa génn ci jëmm yàlla mënu koo mënu faa génn yàlla aay na ko mu génn ci péeb yàlla bi est-ce que da yàlla la aaye mu xewalu ci xewalu yàlla yi déedéet ndax mu ngi dund dund gi mu dund rek ci xewalu yàlla yi la bokk kon yëg peeb yàlla bi la ko yàlla aaye kon loolu dugg aljana taxut mu yëg xewalu aljana yi taxut mu yëg yàlla bi ñooñu loolu mooy seen tontu bi gën a wér boo xam ne nag man noonu laa ko gisee di la moom dana indi yeneen tontu waaye daal yëg yàlla ba ak di ci xewalu ci loolu leer la ko yàlla yàlla rocc ci moom waaye dugg aljana <coughs> dégg <coughs> dugg goo xam ni duggum natt la te du ànd ak benn xéwal déedéet parce que boobu aljana euh, defalaguñ ko muy loo xam ne ni euh, way fay yi jël nañ seen place mais ba mu nekk kër ak fay nag ku defalul yàlla amoo fa fay waaye ba mu nekk gut fay kum neex yàlla mu jaarale ko fa bu ko neexee mu jaarale ko fa xéwalal ko bu ko neexee mu jaarale ko fa du ko xéwalal waaye iblis bañ ko génnee it ci péeb yàlla bi génnewuñ ko ci jëm yàlla ji génnewuñ ko ci moomeelu yàlla. génne wuñ ko ci fi yàlla yëpp kon génne nañ ko ci péeb yàlla yi maanaam du yëgati luy génne ci xadara ba leer googu du ci mën a dund xewal yooyu du ci mën a dund kenn waxut ne dund na ci aljana ci xewal yooyu waaye dafa dugg rek jax-jaxal aadama <coughs> loolu loolu lu war a mën a nekk la ndax génnul ci jëmm yàlla ji génnul ci moomeel yàlla <coughs> te boobu aljana nekkut ko rek fay wala azali moo tax xaala wax na uxruj génnal minaa ci aljana mazmuman di kuñ ayibal madxuuran di kuñ dàq al wa xaala wax na ne faxbit génnal minaa ci aljana su ma yekkun nekkul lakk di ñeen anta takkabara ngay réeru fiyaa ci moom génnal ci aljana ndax waroo ci réeru wala génnal ci péew yàlla bi wala génnal ci asamaan loolu lépp yàlla mën na ko wax dégg nga xataa sax buñ ko firee asamaan alxuraan moom nettal nañu ne jinne yi dañ naan yëg ci asamaan nan ci asamaan ba pare may leen ñu ci ba yonent bi ñëw moo tax yàlla dàq leen waaw génnal ci asamaan gi kon tekkuwul ne génnal ci barab boobu waaye xéwali asamaan ak dund yi doon dund ci asamaan loolu lañ ci nam moom wóor na lañ laan yëg ci asamaan tey iblis moom dàq nañ ko ci asamaan buñ ko dàqee ci àljana dàq nañ ko ci asamaan kon nan lañ def mën a yëg ci asamaan hmm? la leen may ñuy yëg ci asamaan moo mayoon iblis mu duggaat aljana waaye du dugg ak xéwalu yëg gi du yëg ak kon bàyyi xel wa qaala wax na faxruj génnal aljana fay nekk naka yow rajim kuñ dàq nga wa damiru damir gi di min ha aidun day dellu lal jannat ci aljana génnal aljana aw aw sama wala mu dellu ci asamaan maanaam génnal asamaan awil manzilat wala mu dellu ci daraja ja génnal ci daraja jooju daraja jooju nag moom lañu wax ne dootu fa delluwaat waaye ab barab rek moom mën na faa jaar waaye yan maakaan ak lu mën nekk fa maalum luñ xam andoon ne le am baam leesa nekkul la woo di ku ñëw al nekk baada haza gannaaw xam ne turité dàq nañ ci moom ñooñu dañoo wax ne ak lu mën a xew fañ ko dàqee moom mënu faa delluwaat waaye loolu alquran na ko wedd ndax dàqee nañ leen ci asamaan te delluwaat nañ ci asamaan gannaaw ga jinne yi dañ daan yëg ci asamaan xam naa naqudu naan aqudu mina maqaayida ci test ak ci alquran waaye daraja yañ amoon moom bu njëkk ci asamaan dootuñ ko amati loolu rek mooy wax ji kon laaj ñaanal bi dafa naa ne loolu tontu na ko nee na mun dellu ci barab bañ ko dàqoon woo bi dañu sorel ko minu ci moom la ala sabil istiqrar mu faa dellu si yoonu sax fa wala ala sabiril murur munu faa dellu ci yoonu romb fa rek wala eh, wala ak jàll <clears throat> ne ne munu faa romb munu faa sax kon nan la iblis mën a duggaate aljana waaye it laaj leen ñoom ñooñu nangu nañ ne iblis dañ ko dàq ci asamaan moom ak njabootam yëpp <clears throat> nan lañ mën a delluwaatee ci asamaan hmm? kon loolu wala na ne dellu googu du dellu xewlu du dellu daraja du dellu dara dañ faa jaar rek ngir li yàlla bëgg liggéey <coughs> dégg nga loolu rek la loolu moom mm, bokkut ak ñu delluwaat fa dellu goo xam ni dañ fay am daraja loolu bokkut loolu mooy seen tontu kon dina <coughs> am na ñeneen ñu ci tontu xaala wax nañu wa maalumu lañ xam min zahiri siyaqaati ci di feeñ ci eh, màngil quran màngil alquran min zahiri siyaqaati alquran li feeñ ci màngil alquran maam ne alquran waxee annoo ne moom waswasa jaxal jaxal na li aadama ñeel aadama waxaata boo tam waxante moom bi xawli ci waxam la wañeel ko iblis dafa jax jaxal aadama waxante moom ne ko ala dullu ko ndax du ma la tegtal laa shajaratil xuldi ci aljinaay beel wa mulkin ak nguur laay ab laa boo xam du rab kon kay alquran moo ndax aadama ngi aljana te iblis ñëw na wax ak aljana wax ak aadama jax jaxal ko ne ko ndax du ma la tegtal ci garab ak beel ak nguur goo xam du rab ma bi xawle ak waxam ji wax ne maanaa xaakuma terawul leen rabbukuma seen borom anaaji shajarat ci bile garab ilaan takunu naa li ngeen nekk malaka di ñaari malaaka وتكونا ولغنك من الخالدين جبوكش ويبيلي وخاصموا ما مغني لن اني نك من لكما لمن الناصين ما جبوكش ولا يبير لكما نيل لن يوم ينيا فضلهما متكتلن بغور تشاي نخه لولي واخ لير لا جيرني ابليس ادم دجي نك ناوغا ادم الجن لا نكون من هو هذا لي ظاهر فين في اجتماع شي دجي غيم دجي لو ما هما عندك نيوم نيار في جنتي ما سين الجنه <clears throat> لي موم فين ابليس دجي نك ادم ak xawaas seen aljana ah kon nuñ def moon faa duggaat te yàlla dàq na leen fa waxat ujibu tont nañ ñu borom xam-xam yi haaza ci lii bi àndoon na li am baam laa yam tanu du terewu anee tamay mu dajaloo bi ma ak ñoom ñaar fi jannati ci aljana ala sabiril mururi ci yoon romb fiyaa ci aljana laa ala sabiril istiqraar nekkul yoonu sax biyaa ci aljana aw annahu wala ne li am baam waswasa jax-jaxal na lahuma ñeel ñoom ñaar wa wata ala baabil mu ngi ci aljana amin taxti samaay waaye ci roon asamaan fi salaasati nekk na ci ñetti waxib nazarum setantal wala alama alaka ci xam waaye daal comme que yàlla wane ne dajee ne dajee nañ jàllawaat borom xam-xam dañ ne gi dafa jaar rek waaye saxut fa wala boog ci buntu aljana la wala ci roon asamaan la leen jax-jaxalee ibnu kasir ne ñetti wax yi jar na xoolaat waaye daal ñetti wax yooyu nekk mën naa nekk mu duggaat aljana mën naa nekk waaye du fa dugg dugg kuy xewalu waaye du gëpp ku ku ku yàlla <clears throat> bëgg a feeñalee ci moom dara rek la hmm? du dugg ak xewlu du dugg ak comme niñ nangoone dàq nañ leen jugee ci asamaan te jinne yi kat amoon nañ ay jotaay yuñ noon toog ca asamaan nan lañ def ba mën a jot jotaay ak euh, waa asamaan <clears throat> bay mën a dégg la nga xam ne ni moom lay mën a malawul ala seetu su kawe ci di man di wax te yàlla génne na leen fa loolu kay alxuraan na ko saxal mu leer nañ gannaaw ga la leen yàlla dàq ku bëgg yéeg rek ñu dàq ko ba doo mën a déglu lay génn foofu hmm? loolu wane na yàlla mën na leen dàq ci barab ba pare may leen kàttan ñu dellu fa waaye duñ fa dellu delloog daraja <coughs> loolu dara nekkul ci kon Iblis dégg nga <coughs> daan na yéeg ci dugg na ca aljana dugg ak nattu pour aadama waaye du dugg ak du dugg ak xewal yooyu maxta yooyu maxta ja si la nga xam ne laa yoon bii ci moom. أصحاب هذه المقالة نيون وحجي ما رواه لنا تنك عبد الله بن إمام أحمد عبد الله بن إمام أحمد دوم إمام أحمد في زيادات في زيادات دينغا عن حدوة جريك حدوة بن خالد عن حماد بن سلمة عن حميد عن حسن البصري عن عطي عن موي مجيري تنانغا نعم بك هو مم عطي ابن دمرة السعدي عن أبي بن كعب قال من إن أرمانك أرمان محتضر بن سكراته استهان من قطفاً ab cëgg min inabil jannati ci resin aljana fantalaxa mu booy banu doomam yi yetluwu pour ñu sàkku la ñeel ko fa laqiitu mu dajeeg ñoom almalaykatu malaaka yi fa qaalu ñu ne ko ayna turiiduuna fa ngeen bëgg yaa bani aadama yéen doomu aadama ngeen bëgg a dem fa qaalu ñu ne inna abaana naka suñu baay istahaa na mun a xit fan <clears throat> ab cëgg min inabil jannati ci resin aljana yi fa qaalu ñu wax la mu ñeel leen irjon delal leen faqad ku fi tumoo fegal nañ leen seen pap boobu فان تهاو نيو هج اليه جيم سن باب فقبلو فك جيل نان روحو روحم وغسلو نيو سانغو كو وحناتو نيو گتل كو دافال كو بارفون وكفنو نيو سانغو كو وصلى الله مجلي عليه سموم جبريل جبريل وبنو اك دوام خلف الملائكه تشرون ملائكه ودفنو نيو رب كو وقالو نيو نكو هادي لي سنتكم موي سن يون في موتاكم سن ويداي نو سياتي دنا ديك الحديث حديث بسندي عندك سندم watimaami lafzi ak matak baatam yëpp inda zikri wafaati aadama bu ñu tudd faatuk aadama ala yàlla nekk moom asalaamu jàmm dinañ tudd xadis bi sanad bi ak baat ba xadis bi jeex ñii dañ ne xadis bi daf ne aadama ba mu demee bay sukuraat dafa nam mu meññitam aljana mu wax doomam yi ñu wutal ko ko doom yi dem di ko wut da dajeeg malaaka yi malaaka yi fu ngeen jëm yéen doomi aadama ñu ne suñ pàpp moo nam mu meññitam aljana ñu ne dellu leen seen papa fekk nañ ko maanaam fegal nañ leen coono bi ñu dellu ci ndeke adama génn naa dina ñu sangu ko gëttal ko sangu ko jibril jullee ko ak doomam yi <clears throat> ci gannaaw maraaka yi doomam yaa ngi sàpp ci gannaaw maraaka yi jibril moo ko jiit ñu daal di ko denc ne lii mooy sunnaay si mooy seen sunna si way dee ku dee trek julle leen ko ngeen sàng ko <clears throat> dégg nga xaalu ñooñu ne falaw la annahu bu fekkatoo ne li am ba am kaana nekk na al wusul yegg ila jannati jëm ci aljana alati ba nga xam ne kaana nekk na fiyaa ci moom aadama aadama alati ba nga xam ne istaha namm na minaa ci moom alxit fu cëgg ak tàndarma ga cëgg ak resin ga bu nekkutoon moom keneen di jàpp ni lama zahabu duñ dem yetlu woon di sàkku zaari ko loolu fa dalla mu tegtal ala annaha ne moom fil ardi mu ngi si suuf laa fi samaay nekku ci asamaan wallaahu yàlla taala ma ko mi alamu waa ji xam ñii ne doomu aadama yi dem gi ñuy dem ci sàkkul aadama aljana meññet resin ci aljana aadama ngir ne aadama daf koo bëgg loolu dafay war ne aljana ji adama nekkoon ci <clears throat> suuf la nekk nekku ci asamaan waaye ñoom ñoo wax léegi ne yàlla barab ba la génnee amoo droit di fa demaat su fekkoon ne aadama xam na ne moom it moo njabootam mënu ñoo delluwaat ci barab boobu ndax yàlla daf leen fa génnee lu tax ñu fay demaat ñoom dañ ne su fekkoon ne njaboot gi <clears throat> demaat ci aljana jooju mënu nekk kon duñ dem pour sàkku cëggëb resin boobu te fële ci gannaaw dañ ne Iblis mënul duggal aljana ndax yàlla daf ko génn génne yàlla du la génne ci barab ba pare nga fay demaat kon aadama yit naka la ko yàlla génnee aljana deegut moom ak njabootam ñu mën a demaat aljana di fa jël am meñña di lekk xam nga loolu xeluwut kon ñoom lañ dàqee fee moom moo moom la ñu layee fii loolu seetluwuñ ko woon aadama ci boppam naka la ko yàlla génnee aljana njabootam mën a demaat ci aljana jël ay meññeet di ko muy lekk loolu mën a nekke hmm? lu tax laajte wuñ loolu ndax ñu di ko layee fii ñaareel ba mooy hadis bi tuddut ne aljana dafa yónni njabootam ci aljana ji ko yàlla génnee woon déedéet meññetam jannatu rek la wax jannatu dañuy firi tool daal a wax ne inna balaw naahum kama balaw naa ashaabal jannati natt nañ leen comme nu nattee borom tool ba kon aadama <sniffs> amaana moo amoon tool boo xam ne am na meññetu raisin mu yónni leen ca mais tekkul ne daf leen yónni ci aljana yi nga xam ne nii fala fala génne woon loolu it amul leen lu koy tere ci hadis bi ndax jëmmi yeexu hadis bi tuddut aljana jëm génne woon daf leen yónni ci aljana jëm génne woon daf leen yónni ci minal jan eh, min inabil jannati aljannatu day firi tool hmm, loolu mën naa nekk kon <coughs> ñooñu daal seen wax yi daal bu ko jàpp aadama daal aljana ji nga xam ne nii fala jaam fala yàlla dig jaam yi fala nekkoon قال وحنا يقول احتجاج الله بالالف الف ولا مقلام في قولي تي وخ يالا ويا ادم يا ادم اسكن دكل انت وزوجك الجنة اك سخنا الجنة الجنة لم يتقدم جيتو عاد اك دهل يعود دنا دل عليه تي موم فوم المعود الذهني موي آه، لن مين نتي خل مسلم لول لن تي جيبلو ولكن وانا هو لول ني مين ما دل موي لي خم تكتل عليه موم سياق الكلام ما نغ وخ فين ادم نك ادم خلق بن من ادم سوف ولم ينقل تخل فن انون موروفا يكت نكو دا سما جيم تاسمان وخلق بن نكو دا يكون غير منك في الارض السوف وبهذا تشري اعلم لا الرب يا الملائكه الملائكه حيث قال بن وحي اني نك من جاي نون دفلا في الارض السوف خليفه الكتل قالوا ني وهذا الجنجي كقول تعالى نك وحي على جمنان ان ابلونا نقن لين كما بلوناكم نتو اصحاب الجنه من الجنه <laughs> فالالف الف واللام اللام ليس كل عموم فرمتله ولم يتقدم جيتور <laughs> معود لن من لفظين تبات wa innama hiya nag moom lil maudi zihni mooy lañ min ci xel alaji gi nga xamante la tegtan adi moo siyaaqu na wax ji tëddee wa talool albustaan moo di tool xam nga ñoom ñi borom wax ji ñoom lañuy dàq moom la ñuy laye ñu ne aljana ji yàlla waxoon aadama ne ko dëkk fa xam nañ ne amut foofu aljana joo xam ne ni gisoon nañ ko min ko yàlla na ko dëkk aljana ñu ne ko foofu la wax déedéet waaye dañuy xam ne aljana jiñ xam ci suñ xel moom la ñuy wax waaye bokkut ak nag buñ xam ci sharia mais buñ xam ci ni yàlla waxee ndax aadama dañ ko bind ci suuf xamul fenn fuñ nett ne yóbbu nañ ko ci asamaan ñu bind ko fu mu dëkk suuf kon bu ko yàlla ne dëkkal aljana dañuy jàpp ne aljana jooju aljana suuf la nekk mu ngi mel ne rek ne yàlla wax alquran ne natt nañ ko natt nañ gaa yi comme ni ñu nattoo borom aljana ya borom aljana foofu borom tool lañ ci namu. parce que ñooñu suuf lañ nekk kon bu leen yàlla ne suuf la nekk comme que nekk jógee wut fa bu ko yàlla tuddee aljana dañuy xam ne suuf la nekk waaw dégg nga comme que yàlla bu ko tuddee aljana dañuy xam ne suuf la nekk di firi tool ndax wax ji loolu lay firi lu tax aljanaay aadama ji moom fii wut tool parce que aljanaay aadama ji ku ne xam na ne bu fi yàlla wax dëkkal du ay tool ndax tool kenn du fa dëkk tool dañu fay liggéeyee kon waxi yàlla ji ak waxi inna baloon naam kama wala na asaabu jannati bokkuñ dañ natt na leen comme nu nettalee asaabu ñeent ñooñ tool ga loolu moom ku ne xam na ne tool la ndax wax ji doon lay firi ni wax ji ni ñuy déggee ci wax ji rek mooy tool la ndax ñoon dëkk ñuñ foofu waaye moom la ñuy déggee ci wax ji mënuñ ko déggee ak tool dañ koy déggee ne aljana la ndax daf ne dëkk leen fa ñu fa dëkk di fa xewalu waaw ñoom it ni ñu déggee waxi aadama ji ne aljanatu tool rek lay firi lu tax déggee wuñ ko ko ci hadis bi jiitu bi nga xam ne ñi boo ak aadama ñu ngi dem ci aljannatu di ko wutal meññet te foofu ku ne xam ne ne foofu tool la fa war a gën a mën a firi ndax ñoom dañoo jugee ci dëkk ba dem ci foofu ci jënnatu ba pour wutal ko fa meññet kon foofu pour mu firi tool jaaru na lu tax ñoom firee wuñ ko tool foofu ndax ñu firee hadis boobu aljanaay dëgg-dëgg war ne comme que ñu ngi fay dem rek du aljanaay dëgg-dëgg dégg nga eh, bu doon aljanaay dëgg-dëgg duñ fa mën a duñ fa mën a dem dégg Hmm? ñu firee ko noonu te kat doomi aadama yi <laughs> ak aadama yàlla daf leen génne aljana ñoom ñu ne yàlla génne aljana du man a delluwaat ñoom deeguñ nan la ñu mën a delluwaatee ci aljana saa yu leen neexee rek bu seen bàpp na may dara ñuy dem fi jël kon ko warul mën a firi aljana waaye tool la mën a firi moo tax firee wuñ ko tool foofu hmm? wax yi nag damay mu leen moo tax moo tax du ma si gis rek dama koy leeral <coughs> tey firee wuñ ko tool wax gi ñu wax ne aljana ji aadama dëkkoon ci suuf la nekk ndax loolu lañ ci mën a dégg na aadama yàlla yëkkatiwul ko yóbbu ko asamaan loolu ku leen ko wax ndax aadama ku ne xam na ne malaaka yi la dëkkandoor ba mu tisoo ba ko yàlla bindee tisoo na malaaka yi wax ko yarhamukallaa mu dëkk ak malaaka yi nekkoon seen biir hmm? ñoom ñëpp yàlla digal leen ne leen su yóotal leen ko ah loolu kay wane na ne adama yëkkati nañ ko ci asamaan te bañ koy bind d'accord ci suuf lañ ko bindee waaye yàlla dafa yebal malaaka yi ñu ñëw jël ci suuf andil ko ko kon dañoo toxal toxal nañ ko yóbbu ci asamaan wax jooju wane na ne dañ koo toxal yóbbu ko ci asamaan ndax malaaka yi ñoo jël suuf yóbbul yàlla bu ko defee bu ko defee yàlla bind ko bu ko yàlla bindee kon ci foofu la ko bindee fa malaaka yi nekk te ba mu paree ni yàlla waxee malaaka yi dañoo taxaw aadama taxaw yàlla wax malaaka yi ne waxal leen ma tur yi xamuñ ko mu laaj aadama aadama leeral lépp aada an bi um dafa wax aadama ne ko waxal malaaka yi tur yi di leeral eh, mu lott kon aadama daal di leeral tur yooyu ba ñoom ñëpp malaaka yi ñu xam leen lu nekk nu tudd ak ci yàlla nam ba nekkee aljana it laaj nañ ko aadama dégg nga ba yàlla bindee xawaa laaj nañ ko kii mooy kan yooy yëpp ay wax la yu wane ne Adama ak malaaka yi ñoo nekkoon te malaaka yi ñoo ñu ngi ci asamaan kon ñoom wax ji wax ne Adama amul lenn luy tegtal toxal nañ ko jëmee ci asamaan loolu ñàkk seetlu la loolu moom <clears throat> maa ko ci leer laale pour wane ne wax ju njëkk jëm moo gën a dëgër yii yëpp daanaka jërul jàpp xëy na xelam bi moo leen jàppoon foofu dégg nga waaye Adama yàlla gën na ko ci kaw asamaan muy wax ak malaaka yi di leen leeralal hmm? aljana la nekkoon yàlla génnee na ko fa ci coobareem loolu coobare yàlla la te yàlla kenn tënkut ko te sartaalul kenn boobu ne ku mu xas dugal aljana dootoo fa génn ndax boobu kat ah, bokkut ak mm, lii nga xam ne ni ñoo jaamu yàlla ba mu feeñu aljana ne bu ngeen fa duggee du génn ñaar yooyu bokkuñ xawla wax nañ ne wa zikrul hubuti tudd gi tudd wàcc laay dul du tegtal al ci wàcc mais samaay ci asamaan ñoom ñu ne yàlla tudd gi tudd wàcceeg aadama tekkuwul ne aadama dafay jóge ci asamaan ba li fi nekk woo moom ko xawli taala ni ki wax yàlla jum ne xii la wax nañ yaa nuux yow nuux ihbit wàcce bi salaamin ci jàmm min naas min wa barakaat ak barkaan ak ci wala umumin ak ci xeet mi maa na ko wàccal ihbit te ku ne xam ne wey na maa kaan nekkoon fii sa vinti ci gaal gi ina saqarat ba mu saxeeral juud yi ci juud yi wana daba <clears throat> mu ngis niis almaaw ndox mi ala waj an waji addi ci anam ak suuf si umira digal nañ ko deex bitam wàcc ilayha jëm ci suuf ومومون ما وكان لك موم مباركا دي كن عليه كموم وعليهم أني عندك موم وخال الله تعالى الله أن أحبتوا واجرا مصرا مصرا فإن لكم نكن يالنا ما سألتم لنين لايت نيون يشوف لن يكون مينيتو موسى يالنا واجرا وقال تعالى يا الله وين منها نكل ينبم لو وين منها نك أمن شدوج لما يحبتوا لكم إذا واجر من خشة لا يجرا قال الله ما يدوجي جوجي شكاو دي دان شوف الآية هو في الأحاديث نكن سادس واللغة أغ... أغ... لغة العرب من هذا تشيلو ملني كثير لبري kon ñu ne wàcc tekkiwut jugee ci asamaan waaye aadama yàlla daf ñoo jàngale ne si asamaan la nekkoon fu ñu ko jàngalee mooy dafa yàlla daf ñoo jàngale moom malaaka yi ñoo nekkoon ba ne eh, na ko na malaaka tubb suuf indil ko ko te malaaka yi ku ne xam na ne ñu ngi ci asamaan ñu tubb suuf andi yàlla bind ko foofu loolu war na ne kon moom ci asamaan si la ko yàlla bindee dégg nga bu defee mu wax ak ne an bi bi yi xamal leen tur yi hmm? te histoire bi ni yàlla nettalee histoire bi wan na ne malakul xaas malaka yi gën a jege yàlla ñooñu ñooñu ñoo am am dora di wax ak xadra yàlla bi di tontonteeg moom ñooñu <coughs> ñooñu ñu ngi ci kaw ci liñ xam kon aadama yàlla moo jàngaloon ci kaw la nekk kon bu waxee gannaaw ga wàcc rek dañuy xam ne wàccee jóge ci asamaan lay firi loolu rek la mën a firi amaa ñi suuf lañ nekkoon kon bu ñu la waxee ihbit dañoo xam ne wàcc dañoo xam ne suuf lañ eh, la leen bëgg wax rek wàcc leen ci gaal gi ñëw ci suuf mais kee dafa nekkoon ci asamaan <laughs> dafa am ay histoire yu ne mook malaaka yi ñoo nekkoon loolu foofu ci asamaan doy na ci rek an bi um bi asmaa'ihim xamal leen seen ba pare mu xamal leen mu leen sujjóote doy na ci rek ne iblis moom ci mal dañ ko yéegee ci asamaan ndax loolu nas jàngal nañ ko léegi mu leer dañ ko yéegee ci asamaan te iblis ñu doon gis aadama yàlla di ko wax yóotal leen ci la bokk yàlla wàcce iblis suuf la ko kon iblis wàcce gi ñu ko wàcce si asamaan mu jugee suuf te moom aadama ñoo bokkoon fu ñu nekk loolu rek doon na tegtal ne aadama ci asamaan la wàcce hmm? xaw ma lu tax ñoom seetlu wuñ lii <coughs> dégg nga yooyu yëpp boo gisee ma di ci taxaw di ko leeral mooy wane ne wax ju njëkk ja moo gën a dëgër mooy aadama ci aljana la nekkoon ci asamaan la nekkoon xaaloo wax nañ wala maanaa déet nekk moom mooy li am an aljanaat na aljanaat ci bi nga xam ne uskine ha ko aadama aadama kaaran nekkoon murtafaatan di aji yëkkatiku am saay bi xayal ci mboolem pàkki suuf yi zaata asjaari yi garab wa simaaran ak meññal wa zilaan ak ker wa naim ak xiwal wa nadaret ak natax wa sururin ak mbégte nee nañ li mën a nekk daal te loolu sax mooy li am mooy ne aljana aadama ji aljana nekkoon moo gënoon kawe suuf si yëpp waaye yonent yàlla non yàlla wax na ko mu wàcc ci gaalam gi ñëw te ku ne xam na ne gaalam gi gënutoon na kawe ci barabi yi suuf si yëpp <laughs> déedéet dégg ngeen gënutoon na kawe barab yëpp loolu moom ku ne xam na ko waa Misra kii kon waa nitu Moussa yàlla wax ne ihbitu Misran te ku ne xam na ne fañ nekkoon gënul kawe suuf si yëpp doj woowu yàlla wax ne moo si kaw di wàcc suuf ku ne xam na ne fa mu nekkoon gënul kawe suuf si yëpp kon ñoom fan lañ teg ne bu yàlla waxee ne Adama wàccal rek mooy fa Adama nekkoon moo gën a kawe suuf si yëpp lu dul kii fi ko teg doy na waar. kon amul lenn luy war a ni fa Adama nekkoon moo gën a kawe suuf si yëpp bañ ciy dogg sax mhm. bañ ciy dogg loolu amul benn lenn lu koy lu koy wane yàlla mën na koo teg ci barab boo xam ne du fa am benn coono te gënul kawe suuf ndax nit a ngi nekk ci barab boo xam ne amu fa fa mu nekk gënul kawe hmm? ndem loolu it mën naa nekk yàlla wàccee ko ci yóbboon ko aljana yi lu mën a nekk la moo mën a aayalul yàlla yóbbu ko aljana te xañ ko fa ay xéwal waaye jox ko fa ay xéwal loolu lu mën a nekk la ndax te la ko fa yàlla aaye mooy benn garab te benn garab googu dafa am xikmatu lu ci yàlla namm mooy mu wàcc ci suuf hmm? mu wàcc ci suuf hmm? ana ana loolu luy luy wane kii ana ana loolu luy mu mën a nekk comme que lii mën na nekk rek lee mën na nekk te lee moo gën a dëgër kama qaala taala comme nu ko yàlla waxee inna laka naka yàlla la tajoo doo xiif yaa ci aljana wala taala doo rafle اي لا yazulu دو torox بات نوكو سي بير بي جوي jooy خيف ولا ظاهر كو جاغان سي بيت بي لوري bil ori موتاخ مو بولي tax دو خيف دو moom مو ناو دو خيف دو مار واي دو خيف دو waaye مو غنا رافيت مانام سي بير دو rafet maanaam خيف سي بيت دو ci xiif sa و نك نك ولا rafle دو مار فيا تي موم ولا تدها دو fiyaa مانام جنت بي tadaxaa لاك ñaar yooyu ñu ànd ñoo gën a rafet doo ceeneeru doo lakk maanaam laa yemusu laal baat naka sa biir xarru zamay tàngoor ak mar wala zaahiru ko du caagin sa bitti xarru shamsi tàngoor ak jant sa biir tàngoor ak mar du ko laal sa bitti tàngoor ak jant du ko laal wala hada li moo tax xarana lënkale na benn hasa diggante lii wa hasa ak lii moo tax mu lënkale xiif ak rafle ndax xiif mooy torox ak biir rafle mooy torox ak bitti wa benn hasa ak diggante bii wa hasa ak bii maanaam mu rafle mu lënkale diggante mar ak lakk ci ceeneeru jant bi ndax mar mooy tàngoor ak biir lakk mooy tàngoorab <clears throat> bitti li ma benn maa ngi nekk seen diggante mu ne muqaabalati ci dëppoo dégg nga hmm? muqaabala gi ne dafa am solo wax ju amul muqaabala wax ju ñàkk balaa la moo tax am na ñoo xam ne nii ñu ngi fire wax yàlla huwal awalu moo njëkk wala aaxiru moo mujj ñu ne wa mooy ki not not lay firi wala baatinu di ko nëbb luy loolu nëbbu lam jàkkaarloo mooy feeñ kon wa mooy ki feeñ wal baatinu mooy ki nëbb rek la man a wax ji mën a waaye mënu fi zahiru mooy ki not wal baatin mooy ku nëbb wax ju yàqu jooju yàlla du ko waxee fala ma kaana am nekk minu ci moom ma kaana la nekk min ak lii ci lekk mu lekk mina sajarati ci garab alati bi nga xam ne nuhiya tere nañ ko xanaa ci moom obita ci dañ ko wàcce ilaa di shaqaay suufu texaadi wa taam bi ak coono wa nasabi ak ak sonn wal kadari ak ak nax wa saay ak dox ak jéem a liggéey wa nakadi ak ak ak ak jafe-jafe wal ibtilaay ak natt wal ixtibaar ak examen wal imtixaani ak ak ak ak dégg nga wal ixtibaar ak gëstu wal imtixaan ak examen yëpp nattu nattu lay firi rek waxtilaa fi sukkaane ak wuuteeg way dëkk yi diinan ci diine wa axlaaqan ak ay jikko wa amaalan ak ay liggéey wa xusuudan ak ay jubluwaay wa iraadaat ak ay bëgg-bëgg wa aqwaalan ak ay wax wa afaan ak ay jëf nee nañ daal suuf sam nekkoon moom amul fa problème ba mu lekkee garab gi ci la ko yàlla wàcce suufu texaar yi ak coona ak ay jafe-jafe ak nattu ak ay nit ñu wuuteeg diine wuute ay jikko wuute ay liggéey wuute ay jubluwaay wuute ay wax wuute ay jëf comme ni nga koy gisee rek ku nekk di wax léegi ndaal wax ay toj ku nekk di wax nee na yàllaa ko andi suuf soosu ba mu wuteeg ndigalam waaye suuf la nekkoon waaye loolu eh, li gën a wér daal mooy aljana ji nekkoon mooy aljana ji yàlla dikk <coughs> ndax yàlla buur bu tedd la eh, te doomu aadama muy xalifaam bi gën a kawe kon su koy teral daf koy teral teraanga gi gën a gi gën a foor dégg nga bu ko génnee ci teraanga googu ngir am lu gën a tedd lu mu bëgg te mooy yonent yi ñëw ak malaaka yi ñëw dégg nga <clears throat> daf koy wàccee foofu indi ko ci kaw suuf waaye buñ góorgóorloo mu delloowaat leen ci teraangu gi nga xam ne ni foofu la leen génne woon loolu mooy yi nga xam ni moom moo gën a xelu te ni yàlla waxee aadama dafa nekkoon ak malaaka yi jaxasoon ak ñoom yàlla dugal ko aljana <clears throat> mu jàngal leen te malaaka yooyu ci kaw lañ nekkoon Iblis nee nañ suuf la nekkoon yàlla jël ko yéegee ko ci kaw su dul dara am na xadis yu leer naa ñu yoone ne moom moo doon garde asamaan gannaaw ko yàlla wàccee ko suuf ku ne xam na ne yàlla wàccee na ko mu ngi ci suuf moom Iblis hmm? Hmm? ca géej la dëkk léegi te bu njëkk ci asamaan la nekkoon te Iblis ak Adama dañ doon gisee dañ doon gisee hmm? <coughs> Adama Iblis ñuy si sujjóot la kon loolu leer nañ la ne Adama ci kaw la nekkoon waaye nekkutoon ci suuf. li man taamal ñeel ko sitantal nag laa wax dañ doon gisee wàccee gi ñu wàccee iblis ci suuf day wane aadama it buñ koy wàccee ci asamaan lañ ko jógee wàccee ko suuf comme ni nga xam ne iblis moom leer na ne ci asamaan lañ ko wàccee te moo ñoo nekkoon hmm? kon loolu wane na ne aadama nekkutoon ci suuf loolu nag hmm, <coughs> ab la rek koo xam ne xuus naa ci pour mu bañ a jax-jaxal koo xam ni xëy na dégg-déggam du yegg foofu te bu gisee téere gis na téere yu borom xam-xamu kii te yooyu leeralul ko mën naa yaakaar ne nangam waaye ñenn ñi pas-pasu waxaab yi da leen xaw a laal mën nañu am xam waaye dégg-dégg dafay manqué yàlla ñu ko yàlla wërsëgal wa dégg-dégg yàlla eh, li ci ëpp jox na ko suñuy mbokk yi nga xam ne ay suufiyanke lañ hmm, bañ jébbaloo yàlla da leen yàlla jébbal dégg-dégg yi moo tax ñoom dara jaaxalu leen waxuma ñoom rek ñoo am dégg nag wala kum ñeel na leen fi àddi suuf mustaqaran sax mustaqarun sax waaye wa mataaun ak i bagage ilaa xiin ba walaa yalzumu du war min haza ci lii annahum ñoom kaanu nekkoon nañ fi samaay ci asamaan kama qaala taala comme nu yàlla waxee waqul naa wax nañu baax yi gannaaw gi li bani israil ñeel bani israil uskunu dëkk leen ardu suuf fa saa jaanam dikk na waxdul axirati digg ak alaxira ji naa dikk leen bi comme seen la fi fan mboolem seen ñu ne bani israil yàlla dafa leen wax dëkk leen suuf te fekk ñu ngi woon ci suuf waaye aadama moom dafa am texte yu leer naa ñuy war a ne ci asamaan la nekkoon wa maalum luñ xam annahum ñoom bani israil kaanu nekkoon nañ fi suuf wala mu yekkunu nekku ñoon fi samaay ci asamaan lu mën a xew wute nañ ci waaye jàppal lu ma la wax rek ba ngay gis lu ko gën a dëgër xaaloo wax nañ ne waaye su nekku haadal xawlu wax ji mu faraan diruñ banqaase alaa xawli ma ñun kiru ci waxi kuy wedd wujudal dina teemi aljana wan naar ak safara yow ma tey xam ne ñoo xam ñoom jàpp nañ aljana ak safara sax xamaguñ far ñoo ñoo gën a dof ñoom waaye nag ñuy wax ne aadama aljana ji la nekkoon ak aljana jaa ñoom ñëpp dëppoo nañ ne aljana am na safara am na moom wala talaasuma dee taqoo bay numaa si diggante ñee wedde aljana ak safara ak waxi ñuy wax ne aadama ci aljana ji kon nekkoon ak jaa ñoomuñ benn rapport فكل من حكي كيف كو خامن نيت لا جوغي سي موم هذا القول بلا وقت من السلف سي ماغني واكثر الخلف اك ني بري سي ني ووتو ماغني ميم من يثبت بوك نا سي ني خامن داني سخال وجود الجنه امك الجنه والنار سفر اليوم تاي ني واخ واخ جي دي ووتو سي اسوار ادم بن الجنه لا نيك نيوم نيب داكور ناني الجنه يا ادم نيك الجنه جو حمله كما دلال كون تكتر علي سي الايات اي ولا حديث حديث السيحاوي وير ايا القران حديث وير يوانه aljana lu am la yaati comme nu mu nar a dikkee iraado rottal ko fi mu wóor ca barabam bu ñu yeggee ci barab danañ wane ne luy wane ne aljanaa ngi nañ ba pare wallaahu subhaanahu yàlla ma selam wa taala tudd na ma kawem wa taala ta kawem moom yàlla alamu maa xam bi sawaabi ci njub yàlla mu sell mi ta kawem mi xam la moo njub de in uridu ila islam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa